gan gi euh, Déthié fay euh, mooy euh, coordonnateur pôle des non alignés sëñ bi fay ñu ngi lay nuyu. Ah, soxna si Ngom maa ngi lay sant di la siyaare. maa ndekki nga ba suur. Ah, non ndekkeegu ma nag xam naa il faut que ma bàyyi ba mu xaw a naaj tuuti. <laughs> Eh, ah. kon de yàlla na nga xam looy wax alors. <laughs> ñu tàmbali ak élection présidentielle bu deux mille vingt quatre ñu dëkkmal que ministre de la justice wax ni révision exceptionnelle la ñuy def euh, à la place de révision ordinaire bi ñu doon euh, tàmm amal euh, te bii war a tàmbali kon révision exceptionnelle wala ba waroon am waroon tàmbali premier février muy révision ordinaire ba alors ñàkk am révision ordinaire. lan la mun a indi comme gàllankoor euh, si processus bi jëm si élection présidentielle bi. Euh, en fait euh, li nga xam ne moom la nit ñi di ñaawlu ci mbir mi. aw doxalin la ni nga xamee noonu la ministre de l'intérieur doxale nga xam ne code électoral dafa wax ne at mu nekk li tàmbalee premier février ba 31 juillet dafay am révision ordinaire. Mhm. Euh, ñu toog ba le premier février. Mhm. ministre bi soog a génnee communiqué. Mhm. pour wax ne atum ren mi du ñu def révision ordinaire waaye révision exceptionnelle la ñuy def. loolu moom moo euh, jaaxal ñu bëri ndax euh, code électoral bi effectivement wax na ci article trente sept alinéa cinq révision exceptionnelle Euh, man na am. Hmm. su fekkee ne dañoo dëgmal euh, benn élection. Hmm. te xam nga ne ñu ngi dëgmal élection présidentielle. Hmm. kon révision exceptionnelle mën na nekk. loolu code électoral bi prévoir na ko waaye bu fekkee ne loi bi dafa wax ne le premier février révision ordinaire dafa war a am. lépp looy def ak lépp looy euh, fexe war nga ko yëgal Sénégalais yi balaa le premier février. nga xam ne mois de janvier dara terewutoon ñu génnee euh, communiqué wane ne ren ginnaaw dañoo dégmal élection présidentielle euh, ni ko code électoral bi prévoiré euh, opté nañu tànn nañu pour def révision exceptionnelle révision exceptionnelle boobu nag décret président de la république moom moo koy fixé mais bala koy fixé itam dafa war a njëkk a wax bésu élection yi kañ lay doon. Hmm. ndax bés boobu bu fekkee ne fixé nga ko wax nga ko waa Sénégal. Mhm. ci dañuy xam ne képp koo xam ne kii bëgg ngaa bokk ci élection yi buñ ne le vingt sept février la bu vingt sept février yegsee war ngaa am fukki at ak juróom-ñett yu mat sëkk. kon ñi nga xam ne dañuy nekk ci condition yooyu yëpp dañu xam ne ñoom dañuy bokk ci révision bi. Mhm. waaye li jaaxal sénégalais yi moom mooy ñu bàyyi ba le premier février soog di communiquer wax ne révision exceptionnelle bi du a lan ngeen révision ordinaire du am. waaw. léegi lan ngeen jot ci lii lépp. no du du euh, li li liñ ci jot rek mooy mooy mel dafa mel ni waaj bi dafa des. Hmm. Euh, du concentration ci euh, li nga xam ne moom la ñu war a def pour élection yi jaar ci yoon loolu moom moo des. Hmm. parce que su fekkoon ne nit ñi bàyyi nañ seen xel ci li nga xam ne moom la préparation élection yi laaj kon demane du ñu bàyyi ba bés bi yegg si. ñu soog a wax ne ah waroon nañoo tàmbali mbir te na sangam tey waaye eh, dootuñu ko def leneen la ñuy def loolu ak ñàkk waaj la. Mm. te ñàkk waaj fu mu am ci lu jëm ci wàllu élection eh, xam nga ne loolu eh, ak jaaxle da ci am. te ci ay coow la nar a mujj. Mm, day jur ay coow ndax mm. bu fekkee ne loolu am na rek nit ku nekk danaan xëy na lii moo ko waral xëy na lee moo ko waral. Mm. mën naa doon mbir euh, def ay lal ay pexe yu kenn xamul te fekk na sax mën naa bañ a doon loolu. Mm. te joxuñu leen ci itam benn explication njortu day ñaaw. joxuñu leen ci benn explication si li waral euh, yëf yi demee nii. non joxewuñu explication euh, ñëpp ñoo gisandoo communiqué bi nga xam ne moom la ñu joxe ci réseaux sociaux yi. Euh, nit ñi jàng ko soog a xam ne ah kon révision euh, ordinaire bi waroon tàmbali le premier février dootul am euh, loolu rek lañ ci am. Mm. lana lana waral ci sa xalaat ba tey xamaguñu ban bés la élection présidentielle bi di am. loolu mënoo ko na koo xam parce que at yi élection présidentielle yi jàll yëpp ay mois de de de de janvier au plus tarin Euh, décret bi daana génn pour wane ne élection présidentielle bi war a am ci at mi ñëw euh, waxtu sàngam lay doon. Hmm. Euh, parce que loolu décret boobu bu génnul. bu décret boobu génnul hmm. amul lenn loo benn acte boo mën a posé bu jëm hmm. ci waajal élection yi ndax mënoo def révision mënoo def leneen révision bi mënoo koo def te décret bi wax ne élection yi bés sangam la décret boobu génnul donc loola ak jaaxle la doo mën a xam lan moo ko waral ndax jàpp nañu ne jël décret rek wax ne la l' élection présidentielle est fixée ci benn ba tel jour lay nekk loolu wax dëgg yàlla. Hmm. Euh, jafewul te nii waroon naa fekk ñu def ko bu yàgg yàgg. waaw ni yëf yi demee amuñu révision ordinaire révision exceptionnelle bi itam décret bi génnagul campagne de communication bi ci war donte ministre bi nee na dana am ba tey tàmbaleegul ndax xel mënta dem ba xalaat ne sax ndax am élection dana am. ah na élection dina am loolu moom euh, yaakaar naa ne xel mënta xalaat sax ne élection bañ am. Hmm. non non non kooku jàpp naa ne loolu moom euh, loolu moom mooy li gars yi di wax dernière solution loolu moom xel mënta xel mënu cee dem sax. Hmm. Euh, Sénégal tollu na foo xam ne xanaa kay naka la ñuy def ba dem ci élection yi ci jàmm. ba nga xam ne nañu doon na na mu doon eh, amee ci at yi passé noonu lay amee maanaam nit ñi xëy dem wote ji ci ngoon gi rek daanaka ñu xam ki gañi mm-hmm. loolu kay moom la ñuy wax ne naka lañu yan jéego la ñu war a def pour yegg ca waaye xalaat eh, élection ñàkk am loolu moom bokkul ci xalaat yi moom alors eh, fichier loolu moom du xalaat mm-hmm. fichier électoral bi itam bu weesoo liste yi ana ban jéego lañ ci def ngir xëy na wàññi coowal élection ci réew mi ndax fichier bi moom bari na lu muy boole acteur politique yi ngeen doon waaw xam nga bi yoon bi nga xamee ne dem nañu ci dialogue politique bi waxtaanoon nañu ba wax ne fichier bi na ay jàmbur ñëw càmbar ko hmm. jàmbur yooyu ñëw nañu càmbar ko gis nañu ci lu bari loo xam ne jàpp nañu ne aw na yoon hmm. waaye am na yeneeni digle yoo xam ne def nañu ko wax ne bu fekkee ne bëgg nañu suñu fichier bi gën a baax hmm. gën a ñoŋ lii ak lii ak lii war nañ ko cee def loolu nag mooy li nga xam ne dañoo war acteurs yi toog ñu xool ndax recommandation yooyu ñu defoon yépp ndax jël nañ ko en charge. Hmm. ba nga xam ne buñ ko jëlee en charge daan xam ne léegi moom coowu fichier moom kon dafay daal di jeex euh, pour le moment ci ci ci réew mi. Hmm. mais bu fekkee ne itam euh, waxtaan bi nga xam ne moom moo war ñëw. pour ñu saytu ba xool ndax euh, recommandation yooyu auditeurs yi defoon ndax yépp jël nañ ko en charge loolu moom mooy indi léeg-léeg jiixi jaaxa yi ba ñu mën a yegg foo xam ne euh, dañuy critiquer waat fichier bi alors que loolu objectivement war nañ koo mën a moytu fii ñu toll. Mm-hmm. ak liggéey bi nga xam ne euh, jot nañ ko te def yëpp. Mm-hmm. alors gannaaw fichier bi tam parrainage ba tey kenn xamagul euh, yëf yi naka lay demee contrôle ba ca conseil constitutionnel toujours di indi coow est-ce que am na ci ay garantie wala ay coppite yu ngeen ci yaakaar mbaa yu ngeen bëgg ñu indi ko ci xëy da ngi def fi gën a ñoŋ. xam nga euh, depuis deux mille dix huit bi ñuy discuter parenage hmm. ba léegi nun li ñu mas di wax mooy naam am na ay réew yoo xam ne ñu ngi def parrainage. Hmm. te coow du fa jib ñooñu réew yooyu li leen ko may dañoo am jumtukaay boo xam ne moom la ñuy natte parenage boobu ba nga xam ne yow buñ la nee sa parrainage baaxul doo ci teg baat ndax danga xam ne baaxul. Hmm. nun nag jumtukaay boobu la ñu amul boo seetloo Euh, deux mille dix neuf bi nga xam ne ñu ngi déposé candidature yi au conseil constitutionnel. Mm. xam nga nit ñi dem nañu ba ba bay xeex benn. Mm. dem nañu itam bay candidat yi nga xam ne dàq nañu seen seen parrainage yépp amu ci benn candidat bu taxaw wax ne bu taxaw wax ne. Mm. wax dëgg yàlla liñ ma dàqe aw na yoon. Mm-hmm. ndax xam naa ne lii ak lii ak lii lañ ma lañ ma dàq te jaadu na. Mm-hmm. waaye yow da ngay dem rek nit ñi càmbar càmbar ba ne la euh, sa parrainage baax na nga yëkkat say loxo ne alhamdulilah. Mm-hmm. mais buñ la ne sa parrainage baaxul itam daanaka doo mën a xam exactement lu tax baaxul. te kenn ci yéen xamul naka lañ koy vérifier ba tey. doo doo doo ko xam parce que logiciel bi nga xam ne jumtukaay bi nga xam ne moom moom lañ ko moom lañ koy natte moom lañ koy càmbare. jumtukaay boobu dafa war a loo xam ne ni ñi dañ koy waxtaane mm-hmm. ba nga xam ne yow ci sa jëmu bopp bu fekkee ne indi nga loo indi rek lu jumtukaay boobu wax ne baaxul dangay daal di xam ne lii baaxul parce que niñ ko paramétrer ak liñ ci dugal yépp xam nga ko. Mm-hmm. loolu nag moom mooy li nga xam ne moom lañu ñu manqué te moom moo waral coow li nga xam ne moom ngay dégg ci euh, parenage waxtu wu nekk ndax jumtukaay boobu ba léegi nit ñi nangooguñu ñu toog waxtaane ko ba xam ne jumtukaay bii jumtukaay la boo xam ne c'est objectif c'est transparent c'est hmm. fiable ku ko ci nat kuñ ci natt rek buñ nee baax na baax na buñ ne baaxul baaxul. Hmm. ñëpp d'accord ci. waaw kon bu ngeen demee ci élection ak bii fichier ak euh, problème révision bi ak parrainage bi moom euh, ala kulli àll euh, sëñ bi fay mën nañoo njortu ni élection yi nu mën a doon danam coow. problème bi ñu war a njëkk a régler daal. Hmm. en réalité mooy euh, affaire euh, ni ñuy ni ñuy natte ni ñuy valider parrainage bi mm-hmm, loolu mooy li nga xam ne moom rek moom mooy véritable problème parce que gis nga mm-hmm. fichier bi mm. xam nga par exemple bu fekkee ne auditeurs yi euh, wax nañu ne vi fichier bi valable na à quatre-vingt-dix-huit pour cent et plus mm-hmm. ah ne nag war nañ ko parfaire i def lii def le def lale mhm. loola xëy na dugal ko sax du euh, jafe mhm. du poser problème du mën naa bañ am yenn impact yi ci élection bi mhm. waaye su fekkee ne fichier bi euh, pardon euh, parrainage bi niñ koy valider nit ñi d'accorduñ ci da nga gis coow loo xam ne lenn rek koy jur mooy nit dem déposé ñu dàq parrainage am. Mhm. mu indi coow loo xam ne kenn du xam foo koy foo jëm ak moom ci ci biir réew mi. Mhm. te loolu mën nañ koo moytu. mën mhm. nañ koo moytu parce que conseil constitutionnel mën na jël jël ay experts yoo xam ne yi euh, yu qualifié lañu ñu proposer ko benn euh, logiciel logiciel boobu mu partage ko ak ñi nga xam ne euh, ñooy acteurs politique yi. bu ko defee bu keroogee vraiment danañ dem ci élection présidentielle bi te doo dégg benn coow. alors pôle non aligné bi ngay coordonné lan mooy seen taxawaay wala seen xalaat ci coowal ñetteelu mandat bi. waaw xam nga euh, ñetteelu mandat nun bi ñu demee euh, ci concertation yi en deux mille dix huit pôle des non alignés waxoon na ne ak lopp ak pôle de l'opposition hmm. que nañu waxtaan pour dugal benn disposition transitoire hmm. ci constitution bi ñu adopté en deux mille seize hmm. parce que dañu jàppoon ne Euh, article vingt sept niñ ko bindee euh, dafa doon may possibilité nit ñi def seen interprétation yoo xam ne yii yii moo leen arrangé. Mhm. ñu wax ne pour mu leer ne euh, mandat sept ans bi dafa bokk ci décompte bi. Mhm. nañu def ci constitution bi disposition transitoire bu koy wane. Mhm. malheureusement xeex nañu ci def nañ ci lu ne. waaye booba majorité bi da doon wax ne non constitution bi leer na ñoom d'accord ci ay dispositions transitoires mm-hmm. ba loolu mujjul am mm-hmm. coow loolu nag moom moo ñu topp ba léegi dégg nga itam euh, constitutionnalistes yi werante bi ni mu baree seen biir mm-hmm. ndax ñii naan waaw lii war naa mën a nekk lii war naa mën a lële war mën a nekk waaye nun liñ ci jàpp mooy bi nga xamee ne coow li am na ñu naan euh, euh, leer na ak leerul ki nga xam ne moo jëloon initiative bu réforme constitutionnelle bi hmm. muy président de la république moom dafa indi ay leeral parce que dafa wax ne veillé vérifié nañu constitution bi ba ñaari mandat rek hmm. la ku nekk mën a tee def kenn mënatu la ñaari mandat hmm. wane itam ne euh, mandat bi tàmbalee deux mille dix ba deux mille vingt quatre mooy ñaareel ak bu mujj euh, euh, mandat bu mujj xam nga loolu kon moom interprété na li nga xam ne moom mooy constitution bi. Mhm. nun dañu jàpp ne euh, loolu moom mooy li nga xam ne moom moo am te itam jàpp nañu ne loolu moom lay moom lay doxal. Mhm. loolu moom mooy li nga xam ne euh, moom la ñu jàpp. Mhm. Hmm. alors conseil constitutionnel euh, ñu ne dugaloon nañ dispositif euh, transi disposition transitoire boobu pardon wante dañu ko gàntal euh, te sànq wax nga ni coow li wala confusion bi ma nga tàmbali ba keroog ba conseil constitutionnel gàntale wàññi juróom-ñaari at yi def ko juróomi at muy ñeeloon mandat bu président Macky Sall bu njëkk ba alors bu fekkente ni lii yëpp jur na coow ndax mën nañoo ni conseil constitutionnel lu ji njàkk mooy njaak ci mbir mi. waaw c'est-à-dire euh, conseil constitutionnel euh, moom ba nga xamee ne wax na ne par exemple mandat euh, constitution bi warta kii concerné mandat sept ans bi hmm. waroon na gën a mën a leeral position am hmm. parce que mënoon na wax ne par conséquent bu fekkee ne da ngeen ay décompte hmm. ah ci à à partir de l'adoption de la nouvelle constitution la la décompte bi tàmbali na nga wax ko mu leer. Hmm. ba nga xam ne sax bu keroogee kenn dootul wax ne nañ dugal disposition transitoire parce que boo ne nañ dugal disposition transitoire. Hmm. dañ naan non conseil constitutionnel tranché na ba pare. Hmm. mais vide boobu mu bàyyi moom moo indi euh, nit ñi di def seeni seeni interprétation mm-hmm. mais il n'en demeure pas moins que dès l'instant que conseil constitutionnel tranché woon définitivement mm-hmm. foofa mm-hmm. effectivement disposition transitoire waroon na mën a ñëw nga xam ne par là après euh, coup lañ koy def dugal ko nga xam ne day régler euh, cette situation mm-hmm. loolu nag bu fekkee ne amul ba fii ñu toll mm ay jafe-jafe rek lay indi mm-hmm. parce que dégo bi moom dootul mën a nekk euh, ndax li ko waral mooy euh, tey daanaka ñun ñëpp ku ci nekk ba ñuy dem référendum jëloon nga position nun bokkoon nañ ci ñi nga xam ne ñu ngi doon def pro campagne pour le non la ko waraloon mooy au moins ñaari point bu njëkk bi mooy dañu jàppoon ne li ñu doon wax la question des droits nouveaux mhm. du sañ-sañ yu bees yi mhm. ñu bëri dañ ne woon comme pression bi dafa bëri ci àddina bi pour affaire u euh, borom ñaari tur ñu ñu ñu daganal ko mhm. buñ ko leeralul loolu mën naa doon bunt ñaareel bi moom moo kon ni ñu bind article vingt sept de la constitution ñu wax ne euh, niñ ko bindee dafay ubbi bunt dafay indi jeexi jaaxa ci est-ce que Euh, bu ñu demee ba kii def beneen manda ndax du laaj amaat possibilité laaj beneen euh, laajaat manda mm. que donc comme constitution bi côté boobu itam leerul. ñu mm. waxoon ne bu ko kenn wote na ñëpp wote noo. ba ñu wax loo xam ne li lu leer la. Mm. malheureusement les sénégalais dans leur écrasante majorité. Euh, dal di wéyal constitution boobu. mais li wóor mooy. Mm-hmm. su fekkee ne. Euh, topp nañu ni nga xam ne noonu lañ ko binde mhm. xool itam la taxoon ñu bind ko mhm. dañuy jàpp ne limité nombre de mat li mu ci ñaar mhm. moo taxoon ñu def réforme boobu bu fekkee ne limité ko ci ñaar la nag euh, li président waxoon yaakaar naa ne ne moom mu ngi ci ñaareel ñaareelu mandaam dafay daal di régler problème bi te jàpp naa ne euh, en tout cas ba ba may gis leneen Euh, jàpp nañ ne euh, engagement boobu président defoon dina ko respecté. dana ko respecté lu ko mooy itam askan wi ñoo yor seen. Ah, ca gël guy bu fekkee la ñooy àtte mm, bu ko fekkee ne respecté wu ko. Mm. Euh, yaakaar naa ne li xew deux mille onze deux mille douze. Mm. ñëpp gis nañu ko. Mm-hmm. peut-être am na ci ñoo xam ne ñàkk nañu seen bakkan. Mm-hmm. waaye ba ñàkkee seen bakkan peuple sénégalais moom dañoo toog di xaar rek. Mm-hmm. ba bés ba jotee. ñu woon président Ablaye Wade ne ko ak loo mën liggéey mm. nun dañoo jàpp ne nit ku nekk mm. doo passé do ñaari mandat kon sa def nga sa ñaari manda am nga jaajëf ñu daal di teqale ko ak moom mm-hmm. ci jàmm ak salaam mm-hmm. loola itam bu fekkee ne nit ñi euh, bëgg nañu euh, dëgër bopp def na Ablaye Wade defoon mm-hmm. a ah, buñ ca eggee itam yi mën nañoo defaat nañu defoon jërëjëf jërëjëf Déthié fay ñu ngi lay gërëm bu baax a baax fàttali ni yow yaay coordonnateur pôle des non alignés amoon nañu mbégte lool dalal la ci matinalu Rewmi FM tey jërëjëf merci beaucoup à bientôt merci beaucoup à bientôt merci beaucoup